di nuyu journaliste yi di def ne tey bis bu rëy la bis bu màgg la di gërëm seen teewaay ndax bu ngeen gisee te lii du waxtaan bu ordinaire du conférence de presse bu ordinaire ndax comme ni ngeen ko xamee fukki at tuuti na mais lu rëy la histoire Sénégal ci taarixu Sénégal fukki at dañ koy féete 23 juin 2011 23 juin 2021 Zakaria Pamodi lu rëy ngi noonu rëy bis boo xam ni bis bu màgg la woon bis boo xam ni bis bu rëy la woon ci Sénégal yi Sénégal yi taxaw nii lii gouvernement bi bëgg a def mooy président buy bu koy fal day yóbbaale kenn mu nekk vice président heure bu ko neexee même bu dee ñaari fan la mën na démissionné vice président bi toog place am yow président mën nga am confiance su Sénégalais yi ñu bëgg la fekk bëgguñu vice président bi mais dañ lay fal. nga yóbbaale vice président bi as tuut nga ne bàyyi daa màgget naa wala sonn naa vice président bi toogaat juróomi at te élection du am loolu lañ waxoon ñoom ñu ne ah lii kat man na lu muy nga déglu sa doom ci sa ginnaaw wala sa rak wala sa jabar wala sa xarit fekk Sénégal yi bëgguñu ko bu mooy premier point lii ne vingt vingt trois juin deuxième point bi mooy ñu ne boo amee ñaar fukk juróom ci téeméer bu ne ki ko am képp li am lool day jal nekk président du Sénégal boo amee ñaar fukk ak juróom ki am fukk ak juróom-ñeent ki am fukk ñaar ki am juróom-ñett et cetera ki am ñaar fukk juróom day nekk président Sénégal ñu ne ah lii nag Moussa ngi lay nuru mani dañ ñoo bëgg a nax ndax président bu soog a buy soog a pare am ñaar fukk juróom ci téeméer bu ne da koy yomb ndax administration bi la fa nekk parteem ak alal ji bi yore mënul ñàkk ala kuli ali fanweer loolu nag xam naa sondage yi wane woon nañ ko président bi xam ne mënul am cinquante pour cent mu ne les comme vingt cinq pour cent rek da ngay nekk président Sénégal déedéet kay ñoo bañ ñoo lànk parce que mënuloo juróom-ñaar fukk ak juróom ànduñoo ak yow nga am ñaar fukk ak juróom war a commandé yeneen juróom-ñaar fukk juróom loolu yërul maanaam amoo sax mocce ni loolu moo indi 23 juin pour ñi nga xam ne yéen xale yi soog am âge pour voter nga xam ni booba huit ans rek ngeen am huit ans mënoo xàmmee mënoo ràññee waaye ràññee leen tey xeex bu rëy boobu ñu xeexoon ci jamono boobu ñoom Pape Mody ñoom Zakaria ñoom Garawan ñoom Jules Seye ñoom Amath Dansokho yàlla ko yàlla yërëm ñoom Ousmane Tanor Dieng yàlla ko yàlla yërëm Moustapha Niass ndeysaan jël ko ak xeer bi téye xeer bi bu assemblée nationale Macky Sall mu fa togoon ak Marième Faye Sall ndeysaan di buuxantee ci bundu assemblée bi Alioune Tine ñu blessé ko fa gaañ agressé ko yéen a maa ndeysaan mobilisé ñoom it soo seen seen yu kukk ndeysaan ñu ne lii du fi am ah ñëpp ànd nag seen serviteur ma nekkoon ci biir nekk ci biti mobiliser ci ginnaaw ci biti ci biir ba jàlloog téeméer ak fukk député ak juróom yoo xam ni bëgguñ lu may rendement ndax ñoom lu président wax rek dañ koy guux ne ni président loo bëgg lañ bëgg looy bëgg-bëgg bëgg nañ ko ki jël parole ni lu président wax la ñuy wax lu bëgg la ñuy voté bu la sonal ñun ay député président lañ ah yaa ngeen dégg loolu man leen man nag président ñoo àndoon mu def ma ministre après yóbbu ma assemblée ma nekk ci parlementaire bi nga xam ne moom la àndal suma grand Doudou Wade maa ngi koy nuyu jiite ko waaye ba ma gisee loolu nag ma ne ah Sénégal ma gënal président Sénégal ma gënal ay ndombo tànk président commission laa woon il est rang ministre ma teg ko fa gis nga bu ñu paree dañ ma dàq indi balle bu sax defee mu remplacé ma waaye Sénégal ma ko jaral oto deux oto laa yoroon ñaari oto ñu nangu benn bi mille litres essence ñu nangu ko ma am deux cent litres essence sama salaire ëpp na deux millions ñu teq un million nangam waaye Sénégal ba ma ko jaral waaye waaye ki nga xam ne moom dafa fere fere ba dàq place am xale yi naan ko woo oh, Sonko Sonko lan la def ci Sénégal gi dañ ma ko wax xale yi dama bëgg ngeen yeewu moo tax tey jii de bis bi moom ndax seytaane loo xam ne seytaane boo xam ne la ku mën toj bopp nit la xale yi ñu lay waxal 23 juin bi ñuy xeex ñëpp mobilisé paa yeeg maire yeeg ñëpp ñooy bunt assemblée saa waay Ousmane Sonko tegale ay tànkam bureau am tal climatiseur am bloc fiscal sorewul assemblée nationale. bëggutoon sax li ñu ne wut ñu am ko ndax booba mu ngi ci digg système bi di sàcc suuf di jaay suuf xam ngeen bi ñu jàppee bu jaay dafa dem seeti Mansour Faye. pour ki ci Macky Sall pour bañu jàpp ko sa waaye du wax dëgg mukk ñu wax ko ko mu ne masul gis Mansour Faye seetlu naa ne boobu léegi affaire boobu kenn du ko waxati ndax da koy toroxal ponkal mu fen mag mu fen masuma gis Mansour Faye ñu génn fu ngeen di waxee foo toogee moom yow nga wax ko sa bopp xamatoo lay wax gàcce di la bëgg a donc moo tax doo dégg kenn tegaat loolu dañ koy nëbbal moom dañ koy nëbbal ay njaaxumam ndax ay saagakatam loo wane ci moom lu bon ñu saaga la waaye man comme saaga du ma tax fenn te damaa dërkiis ñu saaga ba pare day nekk parfum ci man parce que dinañ caw caw yu metti ñu léegi li des nag mooy nañ demaree ko waaye man tant que yàlla waxul dama war a dee du ma nit ñi gëm ne yàlla te am fulaak fit yàlla mooy rey donc bu ñëwaat ci 23 juin bi bi ñu xeexee ba am lu ñu bëgg gouvernement bi ci débat yu tàng jër jël naa juróom yoon parole di yéexal affaire bi ndax boo nekkee juriste xam règlement intérieur bi xam lan mooy question la lan mooy motion préjudicielle la mooy intervention sur le texte le rapport ak intervention sur le fond yooyu laa jël di ko jël di ñëw di wax ñuy voté ko voté waat mu dooraat beneen beneen motion préjudicielle yëngale assemblée bi ñëw voté waat ma menacé waat leen dëkk bay tàkk bu ñu koy farba seconde di tàkk si di ñëw ci biir fi ñu jóg assemblée ma neen le peuple est dehors c'est ça le peuple sénégalais il fera face kooku boo nga demee ci Google léegi gis ko. wala YouTube di ko gis. nga bind 23 juin bi ma ne gare à ce que les voteront. gars yi xoolante ma leen ci gars yi laa jógee de. dara du mën tey. retiré rek di projet de loi. Mhm. <laughs> keroog gars yi xam nañu am nañ ci biir seen mbër bu ñu ngemb. te junni ñu bu dee téeméeri nangam de ma taxaw man kër jàll ak ñoom ñu dama saaga dama nekk lu mel ma taxaw zen jàll ak ñoom. wax léegi loolu la Pape Moussa doon wax léegi parce que ndaw day man ndaw boo nekkoon ci biir gi dem ha dama saaga rek ma ne du ma jël parole kon sama waay yi mën naa ñu wate ko ba daw génn def sa yoon te bi nga wate woon Sénégal tàkk wallahi il fi faire face kenn bu ñuy génn du doon dama dem a génnal yóbbu xale yi. boobu xale ñu may réclamer ci biti te député beneen bu ma jàll da da leen ren ni bi ma ñëwee dañu ma yëkkati tuuj ma sama tànk laalu suuf ni ma ne ñam pare ñu fal la président du Sénégal ma ne déet comme la ma di wax dama marché sur des cadavres pour dem au palais ñu ma ko Sonko sëñ na ko wutum nguur jarul bakkat bakkat benn rek booree rek safara la benn bakkat buñ faat sëñ mu taxaaree ko safara la xalifa général des mourides yàlla fi yàgg ci wér nag waaye xam nga Karim Wade dafay jaaroon ak ak ak Khalifa moo tax mu ne ko ma ne loolu politique la politique ak prison ñoo ànd waaye wutam nguur jarul benn bakkan benn benn benn bakkan parce que yow mënuloo defar bakkan waaye waa ji daa bëgg nguur ak a nguur Ousmane Ousmane nguur moytul xam nga nguur mbuub xam nguur nguur nguur ba baase yaa bëgg nguur bi dof mais rek dof wala mu ñaa na dof gaal du teer de gaal dof du teer de waaye famille teer du neex mbokk yi waa ji moom ba ñuy xeex bi ngi toog bloc fiscal mais mu ñemee ñëw naan dama damay def appel bu mag pour le 23 juin nañ dajaloo place de l'Obélisque waaw xam nga koo xam ne yow tooñ rek mooy sa liggéey tooñ moom moom moom dafa ni bu dee première question bi ko malaaka laaj mooy sa waay daa nga tooñ de lu lu lu la ci xiiroon mën ngaa tooñ de boo lakkul kër jàmbur yi yaa ngi tooñ boo rayul it yaa nga taal nga fen nga yow yaa bon nga de Sonko yaa bon Sonko moo bon Sonko seytaane Sénégal la billaahi seytaane nag dañ koy gérer safara la bala muy taal dëkk bi bu ne dañu oote suñu place ñun te xam ngeen ni fukki at la ñuy feete Zakaria déposé woon na demande bi mu Ousmane Ndiaye F23 F23 demandé place de juin pour le 23 juin xanaa kay loolu yoon la M2D mouvement pour la dictature et la déstabilisation du Sénégal ñooñu ñoom mooy mouvement bi nga xam ne ñoom ñooy ennemi Sénégal ba pare maa ngi lancé un appel à Khalifa Sall ak ak ak Karim Wade ñoom ñoo wax M2D maa ngi toog sama kër jël télé bi bi Ousmane Sonko sogee génn gendarmerie section recherche ñu ne M2D du nangu benn yoon ñuy amnistier Karim Wade ak Khalifa mais boobu léegi xam na on est hey yéen ñi ñoo ànd wax ngeen lu garaaw de nañ koy nëpp nëppal comme affaire Mansour Faye bi waaye wax nañ seen xol dañ le M2D e n'acceptera jamais l'amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall parce que doivent des milliards au Sénégal et aux Sénégalais ñoo ko wax. pourtant ñoom ñoo naan condamnation yi ñu def Karim Wade ak ak ak ak Khalifa Sall jaarul yoon ba dem sëñ Mountakha naan ko dañu leen jaay doole xoolal ma ñi ñu mën a fent mën a kàcc ñoom bu dee arrangé ñu ne loi bi baaxul justice amul Sénégal. bu leen arrangé pour Sonko moom kenn nekk candidat Khalifa du dugg Karim du dugg ñu ne ah ñooñu kenn du leen amnistie ndax dañoo lekk xaalis Sénégal waaye ñi ñi ku ñu yàpp et Sonko yàlla yàlla musal ci yow mais il faut que ni ñi xam kii kii Hitler ni la naxee woon Allemagne yi ba jël réew mi jël Allemagne Marine Le Pen noonu la bëggoon naxee français yi ba jël France discours démagogique à l'endroit des jeunes désœuvrés xale yi amul dara ñu ñàkk seen liggéey ñu amul dara moo ne moom moo leen di liggéey nan la koy joxe liggéey ana milliards yi muy jox xale yi ana poste yi kàcc rek fen ba nëb xale boobu wala may de nit ñi dañu ko ragalee waxe la ñu ne eh, yow ko moom doo dara tekki woo tous si que ñu fekk ñuy xeex le 23 juin xeex avant xeex après yow nga ñëw barki de moo jaay fen a fen fi doon liggéeyee impôt yu domaine di génne ay naan di faylu impôt alors que am nga obligation de respecter le secret professionnel mais xale bi buy fen ko tey fen na ba nëpp lépp lu mu xam da koy génne même lu mu xamul da koy génne quatre-vingt-quatorze yi fen rek la barke alxuraan nee naa ko doo ma sa génne preuve bu ma procureur ooyee ki moo dàq mën a weeje moom mu ne procureur du dara ministre bi du dara doyen des juges yàlla ko yàlla yërëm Samba Sall mu ne du dara mais cas à l'orange mu ne nañ ba cas à l'orange ba bu ko ooyee mu ma maa bañ du ma waaye mu ne sama sëriñ ak samay avocat nee nañ ma dinaa wujji ko dara wujji ba léegi wujjiwul te tammaa mbaalu di yéexantu ku ci oo 9 heures du matin yi du yeewu neuf heures lañ ko oo juge bi neuf heures mooy huit maa ngi xoolee mu génn këram toog ci bi ba neuf heures ba nga xam ne juge bu la wooyee juge bu la wooyee avant heure bu la wooyee da ngay toog heure boobu rek greffe bi day génn nii Lamine Ndiaye Ousmane Sonko nga ne oui mu entre entré yow yaay kat citoyen bu ko juge wooyee day daw mais bala may dee Sénégal yu naafeq yu bëri naan ma waaw war nañu ko wax fu muy jaar ma ne yéen daal war xamu leen dara. ba pare naa fekk ngeen un moom waroon na débrouiller ba neuf heures fekk ko le bureau du wala déet muy tamaambaalu ma gis reportage benn benn journaliste maa gis muy dox nank baxaye ko seen TV moo gënoon a gaaw oto bi barke alxuraan ma maa ngi tëdd sama la di sa day dox ba yàgg bu taxawaat di dégg oto bi oto bu doxee une une minute taxaw taxaw di minutes nan kii Sen TV en direct à la Sonatel waaw ñu ngi toll fii ci booru direction Sonatel ma daal taxaw affaire carré waa ji di yërndu di yërndu di xool xale yi di leen def nii comme comme ça xale yi daw di ñëw comme télé bi en direct dafay def nit ñi di ñëw ko ak am attroupement ba mu dugg Mermoz ay midi 9h ba midi diggante raay tali bi rek moo dox diggante Sacré Cœur góor gi ak Mermoz tali bi mu def fa 3 heures de temps. léegi rek constat de nga ragal Sonko ñee ñi dafa liggéey ba ñu dof ñeen ñi amuñ benn personnalité amuñ jom amuñ xel ay dof lañu ñu ne waaw mais Sonko pourquoi yu forcé pour Oudja Corniche yow d' abord un tammaa maalu nga de 9h à midi et demi te juge bi 9h la la woo kon tu respectes le juge institution judiciaire bi faale woo néew nga doo wuji effectivement bu ko wujji kon wujji woo deuxièmement bi nga tollee rond point Mermoz boo di atte pa gujaa bi ne boo Sonko yow kaay jaar Corniche boo gën a gaaw mu ne noonu nii laa jaar yoonu université yoonu Tilène yoonu Sandaga soo ko tourné Pétavin soo ko dem euh, tribunal waa kii kan la yëpp naa fekk yu bon nan waaw war ñu ko ta seetal fu muy jaar mais soo de dee xam am na sëriñ bu liggéey Sénégal yu bëri yu dof idiot comme lui dégg ma de yow képp kuy wax loolu fen nga ndax képp kuy wax loolu mën nga dem ci benn intersection wala benn tali alkaati di la non sa devier jaaral nii kenn ku nekk ci ñuy wax lool mas dem ci tali fa bi tàkk ak xale bi doo nga ne feu feu vert mu ne doo ni ni kii bi ra kii fil bi nañ ñëw taxaw ñu bloqué bien que feu bi tàkk na vert ñu bloqué oto yëpp taxaw di jàllale kuy kuy dem léegi Fann hôpital Fann di nga boo yëg da ngay souvent ñu bloqué oto yi sans xool feu ñu jógee booru morgue ba jàll ñu jógee ci corniche après ñu war a dem kër Abdoulaye Wade jàll ni pour ak ñi dem hôpital fan alkaati boo ku ne fi ngay jaar kenn mu ci baat mel ni Sonko pour la première fois moom lañ ni fi waroo fee jaar moom daal mooy Sonko yow Sonko yow Sonko yow <laughs> Sonko mooy kan mais Sénégal yi depuis quand bu la policier waxee jaaral ni nga ne du ma jaaroon man maay Sonko yow yaay kenn Sonko yow doo dus yow doo dara yow tekki woo dara yow doo président président président da dox fi muy jaar président dañ koy xàll fi muy jaar président gouverneur du palais mooy xool fi président di jaar ma ma ma jàngale loolu nekkoon naa ministre président a doo fi muy jaar moom dañ koy wax fii ngay jaar yow doo président sax nga ne léegi man fu neex laa jaar maa gën a président soo ko dof na de mais dof na ba pare kii bu jëloon nguur gi de kenn yow jëlee koo nguur koo ñu saaga bu la carte waxee li nga bañ bu la procureur wooyee nga ne ma bu la bu la gendarme wooyee nga saaga ko respecté woo benn institution Sénégal yu naafiq naan dañ ko war a bàyyi mu ma ne mais ñi ñoo nul koo koo wala bàyyi ma ndax d'abord yaa doo dox ci tali bi xëy na masoo dugg ci oto nee na sareet xanaa bi ne taxaw li nga taxaw nee na bàyyi ji jàll nga ne ma non non alkadir nee na sareet bi na taxaw mais sareet bi da jàll fi da jàll ndax sareet bi boromam Ousmane tudd sant Sonko yàllaa ko yónni prophète la moom dañ ko war a defal li mu bëgg ay kaay yeewu leen mu ngi ne nax rek di dox seen kaw maayin boobu bu koy wuy ji juge bi ndax boobu mandat de dépôt bi la doon la doon la doon bañ ñu dem ñu jox ko ko muy mu fanaan rëbës ak ay yeewu foofu muy dof doflu di dof doflu dof doflu ba léegi demul ci juge bi boobu tàppat naa dem ci juge bi boobu tàppat naa dem wuji juge bi naan lay jaar ay dof naan dañ ko war a bàyyi mu jaar fi bëgg xaw yi sax li doon def booba alors kooku seetaan la mu mel noonu taxaw naa ku ma mbéj ma mbéj la di appeler à la violence ki moom moo tàkkal El Hadj Diouf tàkkal Birima Ndiaye taal kër yaay Antoine Diome taal kër yaay Mansour Faye taal Auchan Auchan yëpp taal station Total yi attaqué RFM taal oto Makumba Bay taal oto Ndiaga Ndiaye attaqué TFM fekk fa ay ñu yore fetal pour dóor ñooñu génn seen i god ñu daw senegal kay benn bandi la am Sonko la tudd Sénégal benn voyou la am kii rey nit mooy man sama kër xam naa ci dara mu ne ay nervi lu mm, ñu nangu nervi yi waa nervi yi dañoo taal sama kër est-ce que samay nervi lañ Macky Sall moo taal sama kër Macky Sall moo yónnee ay ay nervi ñu taal sama kër taal kër Gorom Saint-Louis taal kër ministre intérieur taalkal Birima Ndiaye Sonko yaa mën a fen Sonko yaa mën a fen fen nga mën a xale bi yow tu prends les Sénégalais pour y demeurer Sonko soral nga ñu taal nga sama kër yàq samay billet sàcc samay billet lépp say nervi ngay taxaw naan nervi yi nervi yan Macky Sall lu muy doyee nervi mën naa am ay élément de sécurité yu ànd ak gendarmerie parce que doy duñ doy ndax bu dee da nga nekk président nekk ci benn stade wala ci benn endroit mu am ay cinquante mille personnes rassemblées il faut que même ñu suñu parti dañu jël ay jeunes ñu rassemblé taxaw a quand même policiers yi bala muy am infiltration loolu la ñu nervi yi nervi Macky Sall mën a fen moom moo am ay nervi le voleur qui crie au voleur moom moo am ay reykatu nit ay taalkatu kër ay taalkatu Auchan ay taalkatu Total moom defam boobu muy àndal Guy Marius Sagna bi naan intérêt français dañ ko taal boo tax ñu taal aussi Auchan dañ ko war jàpp ci loolu taal taal taal total loolu yëpp Guy Marius Sagna la ci Pastef la bokk ñooñu ñooy seytaan yi nekk Sénégal temps yi lu xew ay ñaniñ ay Malicounda pour dem fa taxawal laman la ma de ba ñu bàyyi ñu xaw ko faa <laughs> xaw ko faa toroxal ma ne lu ne li ke tànk bu toogul dina rek ah taxawaalu rek di lambar lambari rek bañ de comme le disait Aïssatou Diop Fall di di yalwaan bañ may la oto sarax la oto léegi mu naan ay étudiant koy fay chambre am kii moo ñàkk jom mu ngi xalaat yi cotisé pour mu am kër yow jooñu ay révolutionnaire rek révolutionnaire bu bëri du nangu ñu may ko xaalis du nangu ñu cotisé jox ko day ñàkk jëriñu jëf jël tall sila naa fay droit d'auteur jëf jël dem ci Dia aussi Amady Dia ñàkk jëriñu naa leen fay droit d'auteur jëf jël ñàkk jëriñu waaye tambaambaalu cotiser leen ma yow yaay kan mais ku nekk di xasaraay lu ku xew fu ñuy kaase nga ñëw taxaw ëpp leen làmmiñ yow doo député kenn falu la doo conseil municipal doo conseil départemental yow kenn joxu la benn benn waaye ab dof bi wut di wax rek waaye loolu xew de am na ciy morom de dañuy créé dof yu wër plateau yi rek bu ko defee seen boo yooyu di leen tagg way diw diw diw diw diw gagné El Hadj Diouf lu ma gagné ndax ñëw na saaga ma ba ma tooy li ñuy wax xamu ci dara jàngul droit ba pare ba ma gagné ci droit damay xale yi ndeysaan ni seen ndey bi ñu juree ñu sañoon ngeen tekki waaye toog yore seen tim seen i kii di saaga rek loolu gàcceel ngeen seen i waajur yéen a ñàkk jom yen yéen a ñàkk jom yéen xaj yooyu nga xam ne saaga rek ngeen def ñu ñàkk jom ngeen mais ñeneen ñi am jom laay waxal léegi bàyyi leen sonko xëy na leen ko woon léegi nag xam ngeen ko de <laughs> pere ku bëggul xam sa affaire la ku xaamul xaamul bala ngay xam xamadi rey la léegi nag xam ngeen kenn ko seqal xam ngeen kan mooy waajooju may bañ a tudd bu ngeen bëggee ma tudd ko Sonko Ousmane borom suuf si bëgg suuf bëgg xaalis mën a kàcc mën a tooñ mën a rey senegal soxlawu la Sénégal yi wala ginnaaw Ousmane Sonko billaay bu ngeen xamoon li ci biir yëpp ci waa li ci bopp bi ci mbirum pétrole mi ci mbirum gaz mi bëgg a jaay ñeneen taal suñu dëkk bi jël milliards yi non dem dëkk feneen Ousmane yaa bon kon na di leen def 23 juin mais def appel sénégalais yëpp mu ngi dajee 23 juin place de 23 juin mooy place de l'obélisque place de la nation ndax sa waay histoire dañ ko war a jàngal xale yi jeune génération yi xale yi xamul ba topp dox boobu ñuy wax Ousmane Sonko xale yi war nañ ñëw 23 juin xam ak discours ya fay am histoire bi ñu war a jàngal yu xam seen caada seen histoire bopp xam seen démb dëgg-dëgg nekkoon démb ña doon xeex démb jàmbaari démb yi comme ñuy toog ak ñi fi jógee nem si yàlla ñoom amaat ak ñoom ñoom tanoor yàlla na leen yàlla xare àjjana ñoom Moustapha Niass ñoom Macky Sall ñoom ñoom Cheikh ñoom Pa ñoom Mamadou ñoom Zakaria ñoom Alioune ñoom Y'en a marre ñoom UBS ñu bëri ndeysaan ñoom El Hadj Samb ñoom Bara Tall Abdou Aziz Tall Pape Tall ñoom Abdou Aziz Diop porte-parole qui la présidence maintenant ñoom Abdou Latif Coulibaly ça c'était le monde du refus du 23 juin où était Ousmane Sonko fu nekkoon suuf si xaalis bi rek la toppatoo kooku bu leen tardel ñëw leen le 23 juin appel solennel place de l'obélisque ndeysaan ñu fàttaliku sunu jàmbaar yi fàttaliku ñooñu fi jóge fàttaliku li fi nekkoon yee jàngal xale yi pour ñu xam seen caada xam seen démb ndax Sénégal moo ko jar waaye saytaane yooyu moytu leen leen ñëw leen place de l'obélisque dégg naa ñu ne daw nañ sax léegi uti nañ feneen beneen terrain xam nañ ni ah jinne bu ma koy daxaar ku yéeg daanu jërëjëf